xam nga bu opposant jël ay ay xale woo leen. bu opposant xale woowuñu leen de. ma ne xale yi yéen dañ xale yi dañ leen woo jël ay nit dugal leen ci euh, di leen di leen dafloo yenn mbir yi dëkk bi tàkk ñun ñëpp ñu tiit fu mu nekk di nag j'espère que di ngeen reculer ñëppay ah, reculer non mais mais may non may xam nga bu dee am na benn nit boo xam ne dafa war a reculer ñëppay reculer xam nga bu dee am na benn nit boo xam ne dafa war a reculer parce que ñam ñan kaw non déglu ma rek non déglu ma rek non bu dee fii yàlla na ma yàlla jéggal jox ji bu dee am na ku ñam kaw Macky moom ñoom kaw moom mi da wuti ndimbal. fan la wuti jéem Touba. ah bon da nga da nga am lu ruusee ci foofu. moo ko amoon tam du ma la ko wax. ah lu tax dama ko wax. Ah, ñaari kilifa yoo xam ne toog nañu fatu waxtaan ba pare. waaw mais léegi fan nga teg ne dafa wuti ndimbal. waaw ah. mais non attends. non yow lu tax nga ne kaaw ma ne la ah. bu dee xam ne dafa jël coup. waaw mais lu tax nga ne dafa wuti ndimbal non dama moo la wax ne damul tàggu. tàggu la. kan moo la wax ne damul waxtaan ak sëñ Mountakha expliquer ko situation bi. situation xanaa dafa wuti ndimbal. ban preuve nga am dafa wuti ndimbal. situation situation réew mi ak décision yi mu war a jël situation bi jarul mu koy euh, mu koy expliquer ku tedd ki ak décision yi mu war a jël laaj ma la moo tax jarul mu koy expliquer ku tedd ki. Hmm. sëñ Mountakha événement 2021 ak sëñ euh, Bassirou Porokhane dégg nga fi léegi de fii Mamadou Diop Decroix mi ngi fi woon ay Demboj Cheikh Tidiane Dièye et cetera et cetera fële ab commission ne fa. coow li bi mu amee jëmm ju tedd ji ci mbedd mi la fekk le pouvoir for ko ne ko dikkal toog mu dëju mu joxaat ko ne ko na mbir mi ànd ak dal rek nguur gee nga woon xolal ca suuf ñuy daw ñii <laughs> di daw ñii di hôtel ñii di avion ñii di sali ñoom ñëpp daw su <laughs> mu ndaxaa moo leen dellu ne leen wuyu ma dellu si leen ngeen toog boobu fekk na m 2 mi ngi doon préparé benn ndaje moo xam ne ca samedi ja fa la waroon jëlee nag kuuba boobu def na trois beneen lañ ko doon laal muy quatre mu yegg teer te ñun ñaanuñ yàlla suñu réew mi yegg teer xanaa xamoo lii xew nii gënalul benn doomu aadama boo xam ne bëgg réew gënalul Ousmane Sonko waxal pour sa bopp yow li ngay wax yow yow cas bi gënoon naa garaaw ni waaw ah. dëgg ma expliqué la xam nga lu ma ne la gënalul Ousmane Sonko laaj ma lu tax booy dañoo dem gendarmerie section de recherche génnee ko su ko neexoon mu waaxu wutali palais parce que instant boobu moom lu yàlla xamoon doy